waaw effectivement parrainage bi man am na feneen sax fu nga xamante ni foofu lañ koy gën a décrier hmm. mooy mënoon nañu en amont balaa sax ñuy dugal parrainage bi ñu dugal caution. waaw pour réduire. le de candidats waaw pour mën a réduire effectivement candidat fantaisiste yi nga xamante ni tey jii moo si bare parce que je pense que ni peuple bi sax population bi sax tey dañu trouver ridicule nombre de candidats à la candidature. Hmm. loolu yëpp day dëggal. Euh, utilité ak pertinence su parrainage bi mais ay yéwén jàpp naa ni quand war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax. Mhm. te premier premier premier filtrage bi ñu war a def sax moo war a nekk la caution. ñu augmenter ko te exiger balaa ngay jox ñu lay jox sax fiche su parrainage. nga déposer une caution. mais bu weesoo loolu aussi il y a le problème bi ma la doon wax sànq. par mhm. rapport ak euh, ordre bi nga xam ne ci la nit ñi di déposé. maanaam mën nañ la parrainer parrainer ma. le def ko nga njëkk a fekk na ki parrainer ñaar yëpp man sax la nekk sama militant boobaa on peut rejeter li nga xam ne mooy sama bopp pour pour doublon. waaw loolu même si correction dinañ ko permettre mais voilà da ngay désavantagé par rapport ak ki la njëkk a waaw loolu tamit dëgg la am na mais je pense que lu ñu war a corriger la rek lu ñu war a corriger la rek. Mhm. parce que aussi ordre de dépôt bi am il faut il je pense que bu waxtu wi jotee ñi njëkk a teel a déposé dinañu gën a am chance ñoom tamit ñu njëkk a jël seen i dossiers. Mm-hmm. donc à ce niveau man gisuma ci. ah et au niveau de l' alliance pour par rapport ak euh, seen volonté. Mm-hmm. Euh, mobiliser lépp lu ngeen am ci ay élus wala citoyens yi aussi. Mm-hmm. Euh, am na ñu ciy joytu vous avez la même réaction que ñi nga xam ne ñoo ngi bokk plateau bi sur cette question. non que ne nit ki li mu moom waru ci xajal keneen. je pense que ni nag aussi c'est c'est fondamental parce que animation wu parti bi la te aussi évidemment daf ñu permettre ñu évaluer suñu militant mm-hmm. et à tous les niveaux dañu war a utiliser toutes les opportunités muy parrainage citoyen bi comme aussi muy parrainage des élus donc de ce fait du ñu bàyyi ñu éparpillé wu suñuy militants éparpillé wu mm-hmm. même bu fekkoonte ni on devrait se limiter à 8 pour cent wala 0 pour cent net loolu je pense que ni du permettre sax ñu mën a évaluer parti bi mhm. parce que boo xoolee législatives yi ñu mujjee génne on avait presque un million cinq cent quarante deux mille mhm. voix mais tey jii li nga xam ne mooy dooleel parti bi ñu retrouvé woo avec un million six cent mille voix mhm. yoo xam ne ñun ñëpp dañ leen war a jël en parrainage jël ko en considération loolu moo ñuy dooleel moo ñuy permettre aussi dans nos bases de données les militants ak responsable ak ñu nekk à la ñu évaluer seen travail. te itamit dina permettre les responsables yi nga xam ne ñi ngi émerger ñu nga xam ne ñu ngi doon liggéey dans le passé ñu mën a moom ñoom itamit quantifier seen liggéey. mais am na lu xew ci diggante mooy que ne Benno Bokk Yaakaar euh, bu 2019 ak Benno Bokk Yaakaar bu bokkuñu. li ma bëgg wax mooy tey jii au niveau de l'APR am na ñoo xam ne ils étaient avec vous tey ils sont plus avec vous ñoom it ils vont se faire parrainer par euh, ñoo xam ne deux 2019 ak 2023 ni tey bokkul parce que tey jii il faut pas oublier que président de la république la fait ko mu bañ a présenté wu loolu dafa doon loo xam ne daf ñu créer benn élan de sympathie benn benn notoriété bu mu ko jox. Mhm. benn ça c'est vrai dëgër lay. mais loolu c'est la de Macky Sall. mais c'est c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar. c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar. ñoo xam ne ils vont s'épuiser ci seen électorat. boo gisee ma évoqué parce que aussi dama gis des citoyens yoo mhm. président taxaw rafetlu ko au point que tey ji pare nañu pour jàppale la coalition Benno Bokk Yaakaar ñii dem nag bon je pense que ni aussi. Euh, bu fekkente ni dañu effrité dañu lu ñuy effrité la rek mais ñoom rek ka dem. Hmm. parce que ñëpp xam nañu ne véritablement. am na ñoo xam ne dem nañu tey xalaatuma sax ñu jege lu xaw a jege sax luy niroog sax premier tour wala sax ñu am parrainage. jërëjëf ñu jàll ci euh, troisième point.